daal defal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ay bis gi nu génn lañu tàmbali woon ak yéen benn jataay bu tudd ñi nga xam ne yàlla bëgg na leen ndeysaan ñi nga xam ne yàlla bëgg na leen loolu day lu ama am solo la te mboolem lu nit di wut loolu ci gën a kawe li koy maye nag mooy tomb yi ma doon wax te doon ko tàmbalee lim ku ca dégg benn ne ca ku ca dégg ñaar ne ca ku ca dégg ñett ne ca mën naa am lim ci juróom-ñett mbaa juróom-ñeent ma tàmbale woon ko ci almuhsinuuna ñiy def lu rafet tegoon ca ñeneen ñi nga xam ne ñooy almuttaquuna mooy ñi ragal yàlla wala boog ñi am jëm ci beneen baat bi mu koy firee ma tegoon ca al muqsituuna mooy ñi maandu al muqsituuna mooy ñi maandu bi ma yëkkati jataay bi keroog ma tolloon ci at tawaabuuna mooy ñi tuub at tawaabuuna mooy ñi tuub tuub mooy ko def lu mu def dellu ginnaaw ci lam doon def rëcc ko fas yéene dootu ko def mu tax sama mbokk ma sas Alioune Guèye ca cene ba moo daan wax ne wolof da koo firiwut taaba tuub na rek lay wax mu ne waaye waa taabaak tuub nee na waaw gi rek la fi yo dafa dindi alif gu yokk fi ko waaw waaye firiwu ko ñu ne ko lu taaba lu muy firi mooy mu ne mooy mooy dellu na dellu na mooy dafa am fu mu nekkoon fu gënalul yàlla mu xëy yëg ne du fii mu jëli bagaasam dellu loolu mooy tuub loolu mooy tuub ba demee ci al euh, alquraanul karim ci albaqara aaya ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar sunu borom mi ngi wax ci jigéen ak boroom këram walla boroom këram ak boroom kër ak jabaram dafa am lu jigéen di gis parweer weer ñu tuddee ko ay règle wala ñu tuddee ko ci arab alxayd wala yeneen baat wolof di ko wax baaxu jigéen ndax moom daf daan seet baat yi moom wolof mu di ko wodd ba tabarkalla mu tudde ko baaxu jigéen bu nit amee jabar mu toll ci baax sunu borom daf ne fa'taziluhunna na ngeen leen sori na ngeen leen sori gi mooy bu leen ciq ak ñoom dara bu leen joxe ay bokk lal wa ay wa wa ayut bokk ak mbàjj ayut waaye bu leen ciquk ay nag bu leen sequk ay ba bam noppi ca baax googee te mooy deret juy génn ci moom bam noppi ci deret ja bu noppee ci deret ja fa iza tatahharna bu noppee ci deret ja fa atuhunna jox leen ay miin haythu amarakumullah fa yàlla dige ko fa joxe ay te doom di fa sosoo waaw te doom di fa juddoo min haythu amarakumullah moo tax soo jàngee baat boobu dangay xam ne góor warta joteeg jabaram fi nga xam ne du fa ame doom faatuhunna min xaytu amarakum allah inna allaha yuhibu tawaabin yàlla bëgg na ñu ne ah man di xamuma ko noonu bàyyi naa ko bés naka tey yàlla mu ne bëgg naa ñooñu ndax nit léeg-léeg muy def lu mu xamut mu jékki-jékki dégg ñu ne nàngam baaxut waaw nàngam baaxut rek mu ne ah man de xamuma ko nii coro bam ne xamewuma ko nii dellu ca ginnaaw la sunu waroon ne bëgg naa la lépp looy def ci àdduna it dem ca bam yàgg nga yëg du loolu nga dellu ca ginnaaw sunu borom bëgg naa la waaw bëgg naa la wa yàlla bëgg na it ñu civilisé abo ah waaw bëgg nañu civilisé parce que loolu suñu borom daf ko tudde ñàkk civilisé ñàkk set waaw jigéen ju toll ci baaxam ngay séq ak moom suñu borom nee na ci salte la bokk waaw moo tax mu ne euh, qul huwa adha mu ngoog sobe la sobe la te loolu mën naa jural jigéen ja feebar mën naa jural góor gi feebar mën na leen jural feebarub dootuñu bëggante mën leen feebar yu baree baree bari ci wàllu psychologie mën na koo jur waaye feebar yu baree bari ci wàllu yaram mën na koo jur feebaru physique ak ñoom seen yooyu ala kulli xaal euh, ak tawaabuuna ñu ngi noonu ñooy ñan nag fa man humu tawaabuun waaw ak tawaabuun arab yi ne nañ siixa mubaalaxa la min at tawba te mooy kathiru rujui ilallah kathiru rujui ilallah dellu ci yàlla léeg-léeg <laughs> wolof wolof léeg-léeg mu ne lu tax ñu naan dellu ci yàlla mosoon naa ko dégg ci wax sa xalaat waaw dañ faa jóge waaw dañ faa jóge waaw bu fa ñëpp jógewut it am na ñu fa jóge waaw ki nga xam ne dafa xëy jëw moroomum jullitam jóge na fa jóge na fa jamono ji muy jëw moroomum jullitam jóge na fa léegi su bàyyee jëw dellusi si na lu rek la léegi nag kon bu ñu defee ne dellu ci yàlla baat bu yàqu la yàquwut de mooy baatu tawbatu mooy tuub waaw ki def lu ñuy tere bis bi mu ko defee jóge na fa bi mu ko bàyyee ñibbisi na loolu rek kat loolu kat mooy yëf yi moo tax wa anibu ila rabbikum am na tuub wa tuubu ilallahi jamian am na te lépp baatu dellu lay tekki ak laallahum na ndax ñu dellu kon dellu gi baat bu baax la waaw baat bu baax la nit ñaa ngi ñu ñaa ngi jóge ca ca ca ca yàlla mi ngi mel ni tey waa ju nekk ci parti ba mu yàgg mu mu mu génn ca parti ba ba mu yàgg mu delsi ci parti bi waaw mu delsi ci parti bi yàlla ba mu dal gaay nag waaw <laughs> yàlla ba mu dal gaay yi kon ak tawbatu loolu rek la mooy dellu ci yàlla ki nga xam ne daa amoon soxnaam ñuy séqe noonu soxna si xamu ko xamu ko ba benn bés ñuy déglu waxtaanu fajar daal di dégg ko wala ñuy déglu ustaas bi tey wala ñuy déglu ustaas Mor Caam wala wala walla ba dégg ci ne liñ doon def baaxul ñu xoolante joxante loxo fas na dootuñu ko def dellu si nañ bañ koy def nag demoon nañ bañ koy def dañoo demoon léegi nag dellu si nañ moo tax at taw ba wala tawaab siixa mubaalaxa la min taw ba te mooy kathiru rujuuci ilallah waaw kuy ñibbisi xam nga ku ku bari looy ñibbisi léegi tey nga jeexal takk nga ñibbisi ba sa lépp ñibbisi waaw tubaarkàlla am na loolu daan def nga ñibbisi am na leneen maanaam dangaa génnoon ba sori dangaa génnoon ba sori ba àgg ci li ma xam mbàkkul léegi nag bu war ñibbi ñibbisi waat ila Dakar bu fekkee bët bu set nga doxub kilomètre wala nga doxub nangam léegi tey nga agsi wa tawbatu hiya rujuu ila llah min maasiyatihi ila taatihi waaw nun la ko boroom xam-xam ba firee wa tawbatu hiya rujuu ila llah min maasiyatihi ila taatihi ba ngay def ak mooy jóge woon nga ci yàlla ba ngay def topp ñibbisi nga fa hum alladina ida faalu sayia aw faida aw zalamu anfusahum dakaru llaha fa nadimu wa taabu wa amanu wa rajuu ila min qarib mu ngoog nee na ñoo ñuy yàlla bëgg leen mooy ñi nga xam ne bu ñu defee njombe bu ñu defee lu dul noonu walla ñu tooñ seen bopp ñu waar leen ñu waaru daldi rëccu ñu waar leen ñu waaru daldi rëccu zakarullaha fa nadimu moo tax waaraate lu am solo la waaw yeete lu am solo la waxtaani diine lu am solo la waaye ki muy amal solo mooy ki koy jàppe formation te du ko jàppee information seytaane bu sañoon information la koy jàppe moo tax da ngay dégg ñu naan animateur religieux ñu ngi ñuy tooñ waaw oustaz diw animateur religieux anim du animateur de déedéet <laughs> du du du du animateur déedéet formateur la formateur la je pense que noonu la ñuy waxee baat bi waaw waaye baat yu daañu ko ay pêcheur ay nangam nangam prêcheur laa bëgg wax sax prêcheur <laughs> ay nangam nangam rek tabarkàlla waaye euh, jàngale diine formation la waaye du information danay wax ne ci kanam tuuti incha allah Haj Malik Maodo ak ñi muy àndal ak ñoom Isa ñooy ñëw informer leen waaw fu corona bi toll ñan ñoo ko fi amagum ñan ñoo ci wér. ñan ñoo ci génn àdduna ñan ñoo tudd ca lal ya waaw tabarkalla yiñ koy wàllaate ci mbedd mi ñaata la ci ñoom ñoo koy wax macha allah loolu information la ñun nag li ñu def nii formation la mooy dañuy dañuy jàngal nit ki ne ko waxtaane diine wala yeete yeete bu ko nit ki déggee ba yeewoo ca day daal di réccu fa nadimu bu rëccoo wa taabu mu daal di dellu ca yàlla wa amanu ñu gëm wa raja'u ilallaahi min xaribin balaa yàgg ndax dellu yëg bu gàtt boo daanoo moo gën a yomb yëg bu kawe nga daanoo fa daal di jégglu seeni bàkkaar waaw daal di bàyyi lañ doon def waaw daal di dogu nag ne duutuñu ko defati mukk daal di tofal ca ca tuub gën a ñu toppal ca al amal as saaliha jëf yu baax waaw hmm? waaw mu ngoog walaw takarrara minhum zanbu taabu minhu wa man taaba taaba llahu alayhi bu taabu min azambi kaman la zanba la cëy mu ngoog bu defee njumte bul wax mukk ne yàlla mënumaa baal wala yàlla duma baal wala xool nit ne ko yàlla du la baal loolu du suñuy affaire nun mukk nun jaam yi loolu du suñuy affaire affaire yàlla baale na ak baalewut mbirum yàlla waaye du sunu mbir ñun waaw kutuub yàlla jéggal la kutuub yàlla jéggal la mu ngoog nan yaatal dënn yi kutuub yàlla jéggal la te kutuub bakkaar mokk bakkaarut ñooyam attaibu min adhanb kaman la zanba la ki tuub bakkaar moo ki tuub ngeen baal ma bakkaar moo defal bakkaar yam ak taayib mina zambi kaman la zanba la waaw tuuba ngoog te sunu borom nun ne baale na ko ñëpp waaw nun ne baale na ko ñëpp la ko abu nawaas waxoon ndeysaan abu nawaas ba muy tuub waaw nee nañu abu nawaas jenn waay la woon joo xam ne daal tabarkalla ne meloon neexul ci ma neexul sunu borom neexul kenn neexul yi bokkam moom abu nawaas waaye kër ba muy tuub mu ne sunu borom bàkkaar bu ne def naa ko bàkkaar bu rëy bu ne def naa ko waaye yaa gën a rëy yaa gën a rëy samay bàkkaar loolu la wax suñu borom yaa gën a rëy samay bàkkaar seet tit yaa gën samay bàkkaar mu ne ko soo ma jëggalee te bëgg a dóor am na keneen koo mën a dóor waaye soo ma jéggalut man awma ma keneen ku ma mën a jéggal hmm? waaw mu ne ko soo ma dóomu soo ma duma wut du la tee am koo duma ñàkk maa duma du la xañ ay duma soo bëggee duma waaye man soo ma baalut man munuma am keneen ku ma baal mu ñaar yëf ñetteel bi mu ne ko yow sunu boroom bu fekkee ñu baax ñi rekk la yaakaar mu ñun bànd yi fuñ jëm siet <laughs> ulama yi bañ àggee ci tuubam googu lu ne wax nañ ko ci ay ay ab xasida nag la ko bind ndeysaan xasida goo xam ne daw na yaram waaye ñetti ñetti taxawaay yi ma nga ca biir waaw yàlla sama bàkkaar yi yaa ko gën a rëy muy benn bu ñaaral ba soo ma baalee mën ngaa duma keneen mais man soo ma baalut óoma keneen ku may baal bu ñetteel bi bu fekkee ñu baax ñi rek ñoo lay yaakaar mënul bànd yi fu jëm ndeysaan abu nawaas tawbatu abi abi nawaas ndeysaan mbokk yi maa ngi ci ñi yàlla bëgg lim naa ci ñeent ma limaat keneen muy al mutatahirin ñi bëgg lu set al mutatahirin ñi bëgg lu laab ñi laab laab mooy nit koo xam ni fi mu nekk benn xeetu sobe du ànd ak moom du sobe saayir du sobe baatin waaw bu dee jigéen bu tollee ci baax dana xam nu muy defaroo waaw ndax loolu gàllaaj la ci moom daana jékki-jékki ay jamono ñu jékki-jékki rek ñu ne lii sa sàngam gonu jigéen yaa ngay daanu daan nañ ko fi dégg lii sa sàngam gonu jigéen yaa ngay daanu bu dee ci njàngaleem ñoom Cheikh Seybatul Hamdi Diouf radiyallahu taala anhu mooy gone gu jigéen gi xamut nu muy toppatoo boppam bu noppee ci ay reglam day noppi rek jël muswaaram rekk sànni kom saa déedéet te ginnaaw nit du seexlu boppam waroon na ko mën a def ci ak mbuus fab mbuus ga def ci saagam dem ba seen kër sàkkal ko pexe benn nga fóot ko ba mu set door ko wàcc waaye fab ko nun rekk dem ci poubelle ba sànni ko ci jàpp ne mbalit la yaa ngay seexlu sa bopp te nit du seexlu boppam mukk waaw nit du ñaaw ci boppam fi na nogay li muy ñaaw ñaaw jàpp na ne Dakar mba mbar moo fa gën a rafet <laughs> li muy ñaaw ñaaw moom nogay jàpp na ne mbar moo fa gën rafet waaw baat bala muy naqari naqari fi ne buy way léegi te rongañ ba génn kenn mësu koo gis rek waaw ab <laughs> Ablaye Ndaw xam na ci dara ndax àgg na fa ba ànd ak moom ab photo mu néew photo de kenn ko publier <laughs> kenn mësu koo gis rek waaye nit du seexlu boppam kon bi sunu baram di wax almutatahirun te tudd ci mbirum baaxu jigéen am na lu muy jàngal foofu jigéen ñi bu sa baax jeexee nga nga nga nga defaru waaye yooyu nga xam ne moom nga doon jëfandikoo nga xam noo koy def àdduna nag àdduna bu njëkk dañ daan jëfandikoo loo xam ne xam nga lan la léegi nag jigéen ñi dañuy jëfandikoo yoo xam ne kenn xamut lan la ñu ngi koy publicité rek mu mën a jur ay yoo xam ne nit ñaa ngi koy jàmbat léegi waaw ay cancer col utérus ak cancer nangam cancer nangam fibron nangam waaw mbaadu yooyoo mbaadu yooyoo ah kuy def ci saw yaram dara dangay xam lii nga ciy def lan la gis nga suñ masque yi ñuy masque <laughs> ci ci ci feebar bi yàlla na fi jóg ak jàmm yàlla na fi jóg ak jàmm ñim dal yàlla nañu wér ñim dalagul yàlla bu mu leen dal ñim jël yàlla yàlla xaar leen aljanna waaye suñu masque yi dangaa defe ne bu ñu jot rek def boorutoo demee noonu masque war naa am ay ay ay ay réglementaire yu ci am nuñ koy takkee nuñ koy tekkee ndax danañ ko awlantoo ndax danañ ko àbb buñ ko doon fóot nuñ koy fóote ila axiri ila axiri ndax nit du am lu mu jot rek def ci yaramam waaw na feebar bii nga xam ne dafa sob dafa sob dafa yeewu amul nag doole feebar bi amul doole ma wax leen ko tey amul doole de màggat yi ni mu leen yabe moo lay xamal ni amul doole waaye dafa yeew nag waaw dafa yeew de mën naa dugg ci nikki ki ne cell ba jekk ko mu dur ko yëg waaw ala kulli xaal yàlla bëgg na almutatahiruun ma ngi koy wax ci albaqara ay vingt 222 ba mu waxee fa ida tataharna fatuhunna min xaytu amarakum allah inna allaha yuhibu tawabin wa yuhibul mutatahirin waaye baamtu na baamtu na mutatahiruuna yooñu al mutahirin baamtuwaat na ko waaw mutatahirin fee mu ne mutahirin dindi dindi taaga waaw dindi taaga waaw eh, Serigne Ndiaye mële ca Touba TV ndeysaan Sëriñ Sàmba Njaay yàlla def ne fee al fii mu ne al mutahiriin dindi taaga fële daf caa def taagi fii mu dindi taaga waaw fii ca tawba la nekk aaya cent huit aaya téeméer ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett dafa am lu xewoon ca pénc mooy yonent bi daa am jàkkaam am jenn waaye ju ëpp xaalis am jàkk def jàkka ju dàq seen jàkk waaw muy jàkkay faj mer waaw dëkk bi léeg-léeg ngis fi jàkkay faj mer bariwul kuñ dàqe ci jàkka jëf yeneen ilimaan nga continuer julli bariwut waaw mos naa koo xam nag ci jenn ilimaan wax naa ko ko keroog waaw ñu teggee ko ci jàkk ji fal keneen mu continuer di julli si ma jàngal ko laayu ji ñaare ku ñu ku ñu buux ci jàkk mbaa ñu def la fa leen rek sa kër ngay ñëw def jàkk wala sa buntu kër sa buntu kër loolu nag jàkkay faj mer la tudd ak bari nag waaw dañoo dàq waaj ci jàkk ji wala dafa am problème wala daal di xam ñu ne ko dootoo li xam <laughs> ilaaxiri mu dem koñam rek def fa jàkk wala buntu këram non loolu euh, réglementé wut ngeen baal moom waaye sunu boroom <laughs> yonent bi ba mu defee ba mu sampee jàkkam ji daa am kenn ku samp jàkk joo xam ne moo dàq jàkkaam karo la ci kaw ba ci suuf waaw tabarkalla sonorisé macha allah lu ne am na ci jàkk ja ba nit ñi nga xam ne taaru jàkk moo leen di yóbbu jàkk tàmbalee bëgg-bëgg jàkk jooju boroom jàkka ji daal ni yonent bi vendredi damaa bëgg nga ñëw inaugurer ma sama jàkka ji ndeysaan yonent bi kontaan ndax jàkka ji ni mu rafete mel ni panaal waaw mu ne ko damaa bëgg vendredi nga ñëw euh, inaugurer ma sama jàkka ji yonent bi ne ko waaw daal di tàggu saaba yi fas yéene ànd ak ñoom waaw di di waajal nag inauguration jàkkay waa ji waaw lundi <laughs> la invitation bi ñëw mardi mercredi jeudi suñu borom ne ko laa taqum fii abadan bu fa sa tànk ba tegi mukk ah waaw laa taqum fii abadan bu sa tànk tege ca jàkk ji mukk waxuma laa di inauguré cee tët tët tët laa taqum fii abadan bu fa sa tànk tege mukk la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqu an taquma fii yemal ca sa jàkk ji sa jàkk ji nga xam ne ussisa ala taqwa ragal yàllaa tax ñu ñu teg ko min awwal yawmin tim jiitu jàkk ji ahaqu an taquma fii moo ma gënal ndax sa jàkk ji ngay bëgg bëgg bàyyi pour inaugurer fii rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu allahu akbar ay gaa ngi fi yu bëgg a defaru mu ne ko sa jàkk ji ay gaa ngi fi yu bëgg defaru ku leen defar ñu defaru wallahu yuhibbul mutahhirin na te yàlla bëgg ni ñuy defaru mbokk yi bind bi jeexut bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 98 ngeen bés 2 nu ànd suñu jotaay bii am lundi di am mardi bande annonce bi nag day fàtte wax lundi ak mardi waaye jotaay bi lundi lay am ak mardi 10 heures lay tàmb 8 heures lay tàmbali 10 heures lay jeex 8 heures lay tàmbali 10 heures lay jeex tabarakallah xam naa ci koor gi gaa yi nga doon wax nañ koy tàmbali 9 heures di ko jeexal 11 heures waaye daal 8 lay tàmbali 10 heures lay jeex noo ngi waxtaan bu baa ñuy seet ba xam maa ngi yéen ñi koy. jox ko loo incha allah jërë ngeen jëf jégalu soxna yi lu sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko war a ak seen fi war a jëkkër jotaay bi ndax suñu bokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ tàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu ascenseur mii yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara ñanaan dalan ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi wa rahmatullahi wa barakaatu.